teewaayu acteurs yi yëpp la ñu amal bi liy conseil interministériel bu ñu jagleel mbirum aji màkk atum 2024 bi lii mu nekk occasion bi nga xamante ne voyages privés yi daal dinañ ko saisir ngir rek wax seeni préoccupation ci kanam autorité yi bi ci gën a fës jëm ci compagnie de voyage yi. Air Sénégal moom mooy flotte bi nga xamante ni ren moom la Sénégal tànn ne moo ñuy yóbbu moom ak Flynas. dafa am différence de prix bu am solo ci diggante ñaari compagnie yi mun na bokk ci li nga xam ne mooy seeral aj gi parce que bu fekkante ne compagnie yële la ñun mën nañoo am prix bi ba ci un million te bu ci moyenne bi rek laa joxe ba ci un million mais bu dee ñii daanaka c'est un million quatre cent euh, tey compagnie yooyu ñu tànn dañuy def seeni plan de vol plan de vol yooyu nag yenn saa def ñuy indil ay jafe-jafe mu nekk ay préoccupations yi nga xamante ne ministre des transports aériens daal dina ko prendre en compte. je que les dispositions seront euh, yaakaar naa ni matuwaay yu war yëpp Air Sénégal dana ko jël. beneen mbir bi leen soxal xel mu dal laa ci am ndax da ngeen di firndeel rek liggéey bu mucc ayib bu AIBD di def ngir gën a mën a toppatoo ujaaj yi di dem màkk. seetlu naa ni lépp li nga xam ne ni moom mooy wàllum instruction jox nañ ko personnel bi ngir ñu gën a mën a toppatoo ujaaj ji ci dem bi ak dikk bi yëpp. si seeni doléance bokk na si itam li ñuy fay vaccin yi si bile question nag ministre de la santé et de l'action sociale daal di indi ay leeral. septembre 1992 ba âge de 2006 kenn mësul fayeeku délégation vaccin yi bi ñu toogee ba 2006 ñu yokk lool budget. commissariat ñun waa santé ñu ne mënatuñoo jënd vaccin pour méningite bi bi ngeen ko commencé jënd nag yéen ci ngeen ko commencé korkoral atum ren bi nag Sénégal am quota bu toll ci 12 860 pèlerins ci ñooñu 1860 yi délégation générale moo ko moom 11 000 yi jëm ci voyagistes privés yi